salaamaaleykum ami internet Equivox TV dal leen ak jàmm ci seen biir émission Vox Buzz ñuy tàmbalee suñu émission ci Nakar Actis fële ca Ouest Foire Baye Ngalgou Ndiaye ñàkkoon bakkanam frère di ñu dikkalaat ci na mbir ya xewee woon di ñu xamal itam ne bàyyi ngal gu nit ku baax la woon muy ñaan yoon def li ko war ba tey Cheikh ay mbokkam di ko jooy te noppeeguñu yaayam di ko seddal lu rafet ak di ñu xamal fenn fi ko doomam féete woon mi ngi ñaan itam sénégalais yi jàppale ko ngir mu leeral liy ñuul ci ñàkku bakkanu doomam Cheikh Niass. Abiba en deuil jeune artiste bi di ñu yëgal génnub àdduna benn jeune membre bu Abiba Music di bokk ak ñun nakaram à travers post bi ma petite fée s'est envolée ma sélé bobo aljana rek sama xel dal na ci yow la rédaction présente ses sincères condoléances à la famille famille éplorée leneen na ba tey ñoo xarañ loo nekk ku kenn dootul présenté fii ci Sénégal la di yëgle ni dafay jël soxna waaye ba tey andiwul benn leeral ci ki muy takk ak dat bi dinañ leen ko toppal si suñu yeneen édition voilà li mu gënoon a fës ci toile bi ma leen di jox rendez-vous ëllëg ak jàmm merci beaucoup au revoir.